C'est vous stratifiez les clients. Les clients qui ont une consommation de tout. 0 à 150 kWh. Nous avons des clients à faible revenu. Nous avons 151 à 250 kWh. Voilà. Voilà. voilà, clients à faible revenu. mooy clients yi nga xam ne seen facture yeggul vingt cinq mille par bimestre donc mooy zéro ba cent cinquante kilowattheure am na ñoo xam ne cent cinquante et ba deux cent cinquante am na ñoo xam ne ñoo trois cent cinquante donc bu ngeen xoolee lu ma leen wax pratiquement hausse bi ñooñu ñëpp du leen laal donc ñooñu lu doon fay la ñuy fayat kon bu ngeen di wax réajustement tarifaire bi dañ leen di ñaan ngeen leeral ne aujourd'hui am na Euh, euh, juróom benn téeméer ak ñaar fukki junni client yoo xam ne seen facture du changé loolu hausse bi laalu leen ñoom zéro pour cent de hausse la ñuy am juróom benn téeméer ak ñaar fukki junne client yoo xam ne ñooñu seen facture dara du si changé su dul seen niveau de consommation ñooñu bokkuñu si donc ñooñu ñooy client faible revenu yi amna ñeneen ño xamne aussi ñetti téeméeri junne ñooñu deux virgule sept kese hausse bi parce que dama ko wax rappeler ko président daf nañ li ni ñuy def ñu ko ñàkk def mais nañ def le maximum possible pour ñi nga xamne ni dañu néw doolé ñu préserver lé ñi nga xamne dañu néw doolé ñu protéger lé donc ñoñu mën nañ wax né bokkuñ ci hausse bi ñeneen ñi ci dess nak ñi nga xamne mën nañ fay ñu fay te lu ñuy fay aussi bu ñu ko comparé ak lu ñu leen wàññiloon dese na si sax tuuti j'ai arrondi pour dire 10 pour cent pour tout le monde 10 pour cent mais dese na leen tuuti.